نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين mbokk yi ñu ngi sant suñu borom ñu ngi koy bàkk di ko kañ bi ñu defarate tawfiq ci yërmandeem ji yaatu ji ba ñu dellu siwaat ci doon keppaaru xam-xam ci doon keppaaru alquranul karim téere suñu borom bu màgg bii nga xam ni moo gën a jub ci ay kàddu ci ñu doomu aadama ma fi xam mboolem téere yi nga xamante ni mooy téere yi bàyyeekoo ci asamaan alquran mooy téere bi ci gën a matale waaye mooy téere bi ci mujj moo taxit mu ëmb la ca nekkoon lépp ci ay njëriñ téere la boo xam ni kenn du ci mooy lu dul dafay gindee kenn du ci jàpp lu dul dafay jàpp ci lu wóor waaye kenn du dëgër suñu borom waxtu ko te di ko jëfee lu dul da ngay bokk ci ñuy jaxe yàlla suñu borom boole ci ñooñu ñu ngi nekkoon ci saar yi di suuratul kahfi borom bi defal nañu tawfiq ba ñu yegg si woon ci laayay juróom fukki ak benn tey ñu war a tàmbalee ci laayay juróom fukkeel ak ñaar suñu borom bi wax ni subhanahu wa taala أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا sunu borom subhanahu wa taala ci tàmbali aaya juróom fukkeel ak ñaar ginnaaw bu ñu gisee ni borom bi subhanahu wa taala mi ngi doon nettali nettali bu yàgg muy bu xewoon ci baay aadama alayhi salaam ak iblis laanatullahi alayhi muy loo xam ni nettali gi mook sababi nettali mboolem ci alquran ñoo bokk yem jubluwaay bi moom mooy ñu mën cee fàttaliku waaru ci waaye ñu mën cee jëriñu jubbantiku ci suñu borom di wane ni ñi nga xam ni ñoom ñooy topp seytaane day ñoom topp nañ waa ju saay saay waaye topp nañ ko kàccoore borom bi di ñu nekk ni nag ci lenn ci xew-xew yi nga xam ni dafay xew bis penc nga xam ngeen ni xabaar ci boppam nit mënu koo joxe matal ko ba mu mel ni na mu amee te doo ci yokk doo ci wàññi loolu jafe bu nekkee xabaar boo xam ne ci biir àllaaxira yi nag mu rawati moo tax àllaaxira sunu borom ni wala yunabbi'uka mislu xabiir amul xabaar foo koy dégloo di wax ci mbiri àllaaxira nga amee ca lu wér ci wóor lu toll ni li ngay amee ci nit ki bañ ci kumpay ne ci li muy sunu borom àllaaxira nag mbokk yi yéegaguñ fa waaye ñu ngi dox jëm fa Ubayl ibn Iyaad waxoon waa jë ñaata at nga am mu ne ko juróom-benn fukki at la am mu ne ko juróom-benn fukki at boobu juróom-benn fukki at boobu ba léegi yaa ngi dox jëm ci yàlla yegg ko kon loolu lu lu lu lu lu lu lu xal lu daw daw yaram lu daw waar la loo xam ni nit ki bu xalaatee li mu jot a ñàkk ci ay at ñu ne ko lépp yaa ngi dox jëm ci yàlla te yegg ko fa nga jëm te àllaaxira moo gën a yàgg. sentiment yi daw fii dawut foofa naxe yi am fii amut foofa ah tuurante lëndëm ji am fii amut foofa sentiment yi daw fii amut foofa la fa am kay mooy képp ku jëf yiw ak lu mu bari bari bari bari boo yegsee xel ku jëf safaan ak lu mu néew néew néew boo ko yeneen mu gis dara ci yow ki nga xam ne borom bi defal na ko tawfiq paas dikkale bi ko am na chance bu rëy ni may sonnee ci defar sama àddina ndax maa ngi koy sonnee noonu ci defar sama àllaaxira lu toll ni li ngay soxla ci jumtukaayu àddina yii lu ko raw di ko soxla ci yiwu àllaaxira wële moo tax kon yow ma ñëw ci alquran boo leen desee yëpp dañuy wax ci bis àllaaxira borom bi mu ne yow ma bis boobee nga xam ne mooy bisab àllaaxira yaqulu ci lay wax moom suñu borom subhaanahu wa taala ni naadu woo leen shurakaaiya sama ndend yi sa Abdurahman ibn Nasr as-Saadi mu ni sama ndend yi dañu sama ndend yi ndax nii ngeen ñooma bismillah kon loolu woo leen leen asakkan yàlla aw waaye comme ñoom nee nañ yàlla am na ndend suñu borom dañ leen ko tere ci kaw suuf ñu dëgër bopp bi ñu yegsee ni léegi comme ñoo ñooy samay ndend léegi woo leen na maanaam bu doon nangu ñu ne kon nangu la ñu ñooy njënd yi waaye wóor na si léegi kon wax la joo xam ne waxinu ku nan ma ko xëy ci biir waxal la. wa yow ma suñu borom ni bisu keroog yaqulu suñu borom day wax ni naadu wala shurakaaiya sama ndend yi wala ñi ngeen ma defal ay ndend shuraka mooy ñu associé ak yàlla xam nga ci lañ dina baat ab sharika sharika mooy société ndax diwee def ak diw diw ñu boole mu daal di sotti yàlla suñu ko la amul ndend. amul morom amul wajuru góor laawu jigéen amul soxna amul doom soxla wu ko aajowu moom sunu borom subhanahu wa taala waaye comme ni ñu ko borom yutal te àllaaxira ñàkk ko doon sunu borom ni kaay leen ñu ne naa di wooleen sunaka ñi ngeen ma doon dendaleel alladina gaa yi nga xam ne zaamtum da ngeen ni foogoo ñeeyaay ñoom ñooy ndendi sunu borom wala am nañ kàttan comme sunu borom sunu borom ni suñ leen waxee loola bu ko defee gàcc na leen daal di dikkal ndax la leen dikkalee mooy ñooñu ci seen jëmmi bopp ñoom sax bëgguñ ku leen woo wax wala ñu leen di woo di leen woo moo tax suñu borom doon wax ci aaya ji ma jàngoon ci bind ba le passé laqad jittumuna furada kama xalaqnaakum awwala marra wa taraktum ma xawwalnaakum waraa zuhurikum wa ma nara maakum mu ne shufaaakum wala shurakaakum suñu borom subhaanahu wa taala mu ni dikkal mbir mu tey nekk kenn par kenn comme niñ leen tàkkee woon bi ngeen di judd suñu borom ni ngeen bàyyi ñu leen fàggoon yëpp ci kaw suuf wa maa naraa maakum shufaaakum alladina zaamtum gaa yi ngeen yaakaar ne bu ngeen dajee suñu borom ñoo leen di xicci leen di leen ràmm suñu borom mu ne leen gis ngeen ngeen ànd ak ñoom la suñu borom mu ne ñi ngeen doon foog ni annakum fiikum suraka ñoom ngeen doon dendaleeg suñu borom laqad taqattaa baynakum ay ndeysaan buumu gàcce dox na seen diggante wa dalla ankum ma kuntum tazaumuun li ngeen doon foog tey neen na naaxaay na suñu borom mu ne fa daawuhum ñu daan leen di woo di leen woo waaye fa lam yastajibu lahu buñ leen wuyu allahu akbar ki doon jaamu jant ki doon jaamu weer ki doon jaamu masix mooy isa ki doon jaamu malaaka yi ki doon jaamu jinne yi ki doon ab doomu aadama li gën a am solo ci ñun fi ñuy dund mooy ñi nga xam dañoo jël ay doomu aadama def leen moroom yi xaw tuuti kon rek bu leen gën di lan wax résultat bi mooy kon yàlla amatul dara moom subhanahu wa taala taala allahu an dalika uluwan kabira am na koo xam ne bu waxee mu taw bu waxee mu taw bu naqaree bu naqaree du taw am na koo xamante ni moom fi mu nekk nii lépp luy ñëw ci ay musiba bu waxee rek mu daal jàpp am na koo xam ne ku yàlla nam ma faat te néexu ko moom nga naan suba bi paasee tey am na koo xam ne ma xamal yegg na ci ñu malaaka mi jël ni ko demal tey ci sa taalibe la bu dee yooyu yëpp ay xeeti séddu séddu la yoo xam ne séddoo nañ ko Muhammad bi sallallahu alayhi wa sallam ñi koy tagg te toppal ci moom da ngay dégg ñuy wax ni maanaam bokk na ci lim am mooy àddina bu jëm muy àllaaxira ah dafay yonent bi alayhi salaatu wa salaam ah bokk na ci àddina bu jëm ci lim moom lan xam nag law fal mahfuz dara bokk kon li sa bokkul lu mu doon moom kon xanaa suñu borom xamatul dara kon subhanahu wa taala taala allahu an dalika uluwan kabira yëpp ay xeeti def-def laa ci wax wax yoo xam ne moo tax yéen ci yàlla bu ñu laa ahada asbara ala allah ndax xamuñ yàlla amut ndax xoolal doomu aadama yi mooy li ñu koy mooy li ko def li ñu gën a bañ moom suñu borom muy bokkaale te teewul ñu ngi leen di wërsëgal di leen jox ñu yooyu ila axiri yi ndax lu yàlla fexe nag sàcc lu dul raw jël yàq ci nelaw ndax koo xam ne yàgg yàgg dañ lay takk yëpp suñu borom ni ñu ngi nii te kenn ko nekk ci aajo yow rek lañ koy jox summa ruddu ila allahi mawlaahu wa moo tax da dégg ñu ñu ngi koy jébbal boromam da dégg foofu kenn loolu rek lu rag la loo xam ne doomu aadama su ko xalaatoon dana gën a góorgóorlu bala muy dajeeg borom suñu borom ni fa daawuhum ñu woo leen fa lam yastajibu lahum duñ leen wuyu suñu borom ni wa man adallu mimman yad'u min duni illahi man la yastajibu lahu ila yawm alqiyama kan moo gën a sànq kii jaamu ak woo koo xam ni du ko wuyu mukk ba àllaaxira wa hum an du'aa'ihim gaafiluun te it ñu ngi koy wax indi kay yëgu sa xar amaan na mu di ban te maa muy doomu aadama maa te maa muy feebar comme yow moo tax suñu borom wattaxadu min duuni llahi alihatan li yakunu lahum izza am na ñoo xam ne ñooy jël ñeneen ñu def yàlla di leen jox lenn ci cëri yàlla yi ngir ñu dimbali ñu ëllëg ci leen àllaaxira suñu borom ne kàlla li ngeen dëkk du am de te bu àllaaxira ko yakfuruuna bi ibadatihim li leen leen doon jiit naan yéen ay yéen la ñuy jaabu dañ koy wecc wa yakuluuna alayhim tudda tey dañuy nekk ay noon seen diggante suñu borom ni fataahum ñu woo leen falam yastajibu lahum duñ leen wuyu jamono jooju jamono bi piis la joo xam ne kenn ku nekk boppam la tal ay suwaa ji ñuy woo comme ni ko suñu borom waxee wax qala du'afaa alladina stakbaru ñi nga xam ne ñoo ñu ñàkk ñu ñu néew doole ñu di wax ñi nga xam ne ñoo ñu rëy rëy lu ñi man la inna kunna lakum tabaan ñun yéen ñu doon topp ci kaw suuf xanaa di ngeen fa hal antum mudruuna anna rasulun min annaar xanaa yéen di ngeen ñu xittili bañ mën a mucc ci safara waaye déedéet di ngeen mën a xittili suñu borom subhanahu wa taala ci wax waxante ay kàddu yu métti yooyu ca lay wax ni yéen ci biir yu génn mooy laa tax te suñu war a dañuy parce que xuloo dafay am ñi nga xam ne ñoo doon topp ak ñi ñu doon topp suñu borom ni laa tax tasumu la dañuy fii di wax wax bala bu xulookaay wa qad qaddamtu ilaykum bil waid tey tëkk yi ñu ne ñu naa ko ci kaw suuf ngeen dégg te maa yubaddalu l-qawlu ladayya li ma waxoon dara lu ci suppeeku tey wa maa ana bi dallaamin lil abid tey duma tooñ kenn ci jàng suñu borom ne wa ja'alnaa ñu def baynahum ci seen diggante mawbiqan alkade baynahum fii borom xam-xam yi mufassirin dañ cee wuute ci bamir bi ci kan lay dell wala ci lan lay dell. am nañu ne ja'alnaa baynahum mawbiqan ay wa ja'alnaa bayna al-mu'miniina wal kaafiriin suñu borom mooy dafaa def ci diggante ñi gëm yàlla ak yéefari mawbiqan ak alkande am nañu wax loolu bu ko defee mooy am na ñuy tuddee mawbiq mooy waaj aw xur la aw xur ci xuri sawara yi suñu borom jël ko doxalee ko ci diggante ñi gëm yàlla ak ñi gëmut yàlla mawdu dina ci bëri ak ankande am na ci ay riwaayaat yoo xamante ni ci ay aataar yoo xam ne dañ koy tekkee li nga xamante ni mooy al xul ci jahannam comme ni koy ni kafir indi ak ñeneen ñu dig moom am na ñu ne dégg nga jaal naa baynahum bamir ji mi ngi jël ci diggante la doon topp ak ñiñ doon topp al allaamatul quraan yi as-Shanqiiti bi mu andee wuute bi am ci aaya ji ba nopp dafa wax ni li mu gis ni mooy li gën a dëgër mooy bamir ji dafay dellu ci diggante ñiñ doon topp ak ña doon topp toppee ndax mu ne siyaaq aaya ji loolu lay waree tey al allaamatu Saadi ci loolu la lëndal di wane ne maanaam bay na kum diggante ñi doon topp ak ñi doon topp suñu ma demoon yow jaaraal naa ñu def bay na kum ci seen diggante moo gën a alkande muy alkande boo xam ne dañu koy dégg parce que ka doon topp ak kañ doon topp yëpp ku ca nam ma alku ca alku alkande jooju lay tàbbi. al imam al xasan al basri mu ne mawdiqan ay adaawatan mawdiq mu ne mooy ak noonoo ñeneen ci borom xam-xam yi ñooy déedéet mawdiq mooy waajin fi jahannam aw xur la ci biir jahannam suñu borom subhaanahu wa taala mun ñu def daal di def lu leen di teqale te loolu xam nga gis ngeen usul yaasi wamtaazul yawma wamtaazul yawma ayyuhal mujrimuun loolu la moom diggante ñi gëm yàlla woon ak ñi lànkal suñu borom suñu borom subhaanahu wa taala mu ni wa ra'aahu daal di gis ah al mujrimuuna ñi nga xam ne ñooy saay saay si annaara sawa xam ngeen yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na bu àllaaxira bu yàlla àtte jaam ñi te xadis bii may wax xadis la wér ñu ci saxiix muslim suñu borom dafay yeew safara juróom-ñaar fukki sabuuna alfa zimaam juróom-ñaar fukki junni buum moom la borom bi subhaanahu wa taala di yeewee safara maanaam ay chaîne su fekkoon safara am mbindeef la boo xamante ni mbindeef lu ñu fonkale ci misaal mun mën a téye ak di ko jàpp suñu borom daf koy yeew ak juróom-ñaar fukki junni ci ay chaîne chaîne bu ci nekk yéen ci yàlla dina juróom-ñaar fukki junni ci ay malaaka ñoo ciy téye di juree ci ak moom maanaam sax dama ngi def parce que sawar bu baax tamit mbindeef la ci mbindeef suñu borom yéen ci yàlla ba am sax mu ne sawar ak àjjana dañ dem ba gën ci kii ni ko maa la gën ci ci def ni ko maa la gën àjjana ni ko man la yàlla yi képp ku dem xewul man la la yàlla jaral ay wax a wax ba ay waxam àgg da war ne ko képp ku dem may mën loolu yàlla bu ko dee suñu borom àtte bi daal di jox ci diggante bi nii ay xew kat jaam na ci sama jaam yi kon àjjana jaam la maa la jël jàpp na leen a berndee la ñu ma gëm mu ne sawaram maa la jël yow sama jaam nga mugalee la ña ma doon toon mu jeex muy àtte ba doxoon ci diggante Muusaa ak Aadam kadalik kon borom bi subhaanahu wa taala sawara jamono jooju moom it dafay mer nga xam nga safara mbindeef la ci mbindeef yàlla yi te même jaamu yàlla gi mu am moom safara moom safara jaamu yàlla ko leer àjjana day jaamu yàlla parce que berneel gi mu fay berneewalee ñi ko gën moom suñu borom mooy ak jaamu yàlla sawara mbugal ci ko suñu borom di mbugalee ñi ko doon mooy loolaay ak jaamu yàlla te jaamu yàlla bu ngëm yàlla am wér dafay sawar dem ci ni mu ko doon def loo parce que safara di fipp innaha tarmi bi shararin kal qasri ñu ngi sànni ay étincelle yoo xam ne benn bu ci nekk toll na ni taaxam kaw suñu borom ñu ngi ka am na jimaalatum jimaalatum suuf ñu ngi gaaw ba mel ni jëlee wécc yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci xadis boo xam ne mu ngi ci musnad imam ahmad nee na ki nga xamante ni moom mooy yéefar bi dina seen safara loo xam ne doxut juróom juróom ñeent fukki at la te yegg fa maanaam loo xam ne fi yegg fa léegi ndax na ñeent fukki at waaye mbir mi tiit yi da koy fekk si fan nekk ba mu koy toog ci ne sawaraan ci ron tànkam ci dama jël àjjana am tiitaange di ñoo koy toog parce que sunu borom ni wa raa mu gis al mujrimuuna saay saay si an naara sawara fa dallu ñu daal di yaakaar ni annahum waaqi'uha ñu ngay waaj a tàbbi ci biir maanaam ñu ngi mel ni kenn rek nit bu ko tiimee gis di seen takk leeram tiitaange di ko jàpp ne ñu ngi waaj a tàbbi maanaam alxaafid ibnu kasir mu ni kon lii min baabi taajil alhammi walxasmi kon lii dafay tekki ni bugaram àllaaxira lu métti na ñu ne ko lu tax mu ni kon dafa mel ni yàlla dafa ba ma an anticipé lañ koy waxee teel a kët ci mbugal ba mu jege si te ak seegu ngir ñi nga xam ne ñooy war saa bi safar jiitaange bi leen jàpp ci àgg bi biir safar mbiram àllaaxira mbokk yi doomu aadama ci jëmmi boppam ni ko suñu borom bindee mooy mbindin bu doy waar ndax doomu aadama dafa dafa dafa dëgër bopp dëgër lu fit buy dëgër dëgër lu fit waaye dafa dëgër bopp loolu mooy melokaanam te loolu sax lañ ko tuddee ak saqalayn muy ñaari ñi nga xam ne ñoo gën a dëgër bopp ci mbindee mooy doomu aadama ak jinne su boobu wala ñoo ci ñu anha te duñu am wala safara masrafa mooy ku leen di xicc ni wala foo xamante ni fa la ñuy làqu ba mën a mucc ca la nga xamante ni mooy ndigalum suñu borom suñu borom ne wala qad saraf sarraf na nun yàlla leeral nañ fi hada alquran ci alquran ji ñu koy masal ci misaal yu nekk misaal nañ ajana ak xéewal yi misaal safara ak dugal yi lu dagan lu araam misaal ko ci taw bi misaal ko ci baykat bi misaal ko ci nawet bi misaal ngëm yàlla mboolem loo xam ni misaal la moo xam ni ku gëm yàlla bu ko déggee dana ci jariñu suñu morom moo tax mbokk yi alquran ñàkk koo jàng ci boppam daa wóorut sax dafa wóorut ndax doomu aadama lii tax mu texe ci àllaaxira ak lii tax mu tedd ci àddina lépp suñu morom daf ko dëxal ci téere bi maa farraqna fil kitaabi min shay moo tax borom bi subhanahu wa taala mu ni ñun yàlla kat sab nañ ay misaal te defe naa misaalu alxuraan joxewoon naa ci leeral ci dars yële passé wane borom bi subhanahu wa taala misaal yi muy joxe ak maqasid yi nga xamante ni moom lañ ci am. suñu borom bi wa kaana mu nekk al insaanu doomu aadama ak sara cheyin ki gën a bëri looy gis jadaran ci ak weerante doomu aadama ko bëri weerante doomu aadama dafa bëri weerante maanaam weerante gi mooy lépp lu mu ko wax rek am na lu mu sa bëri moo tax benn bis Ali ibn Abi Talib dafay nekk ci li mu ni maanaam damaa loo ko waxee am na lu mu ci fekk am na lu mu tamaate Ali ne dafa tëdd ak soxnaam Fatima ñu tëdd ba guddi yonent bi ñëw borom la Fatima doomam la mu ñëw fëgg la ñu waaye ñun dañuy nëkk jub jub julli guddi Ali ne ko suñu bakkan yi de yàlla moo ko yore saa bu ko soobee bu ñëwee rek duñ jógee ñu julli yonent bi teg mu yàgg mu wàññeeku yi dem bi muy dem ñu ngi jël ñaari loxo yi di ko dóorante ni di jàng aaya ji muy wa kaana al insaanu akthara shay'in jadala doomu aadama daal moom loo ko wax rek am daloon ci xel waaye ci gëm yàlla ci gëm boppam moom suñ ko jàngalee alquran moom du am luñ ci teg lam yaxirru alayha summan wa umyaana man du am luñ ci teg maa ngi ci namm maanaam du am luñ ci teg lu ci doon jëm ci xel rek moo ca moo ca war a toog waaye luñ cay teg loo xam ne yedd na doon wala diinat léegi mën ko gëm ci yàlla moo koy def waaye du wedd di diinat li daal di jug rek dem jëfe ji borom bi subhanahu wa taala mu ne wa ma mana an naas lan moo bas ci diggante nit ñi ay yuminu ba gëmuñu yàlla subhanahu wa taala id jaahum ba ngeen dikkee alhuda jub lan moo dox ci diggante nit ñi ba beneen jub dikkalee gëmuñu suñu borom wa yastaghfiru rabbahum ñu jéggalu seen borom subhanahu wa taala kon nekk njub saa bu la dikkalee muy alquran wala xadiis boo dégg wala demee noonu li la war a moom mooy nga daal di tuub jéggalu sa borom gis nga doomu aadama saabu ba njëg dikkalee wala mu dikk ak fàttali bu bees ci xelam te jugul tuub jugul soppeeku ne yëg ni moom garab garab la ci garabu saay-saay la garab garab la ci garabu saay-saay ndax ñi nga xam ne ñoom la suñu borom doon meral ñuy safaanu ñii mooy ñi nga xam ne ñoom bu alxuraan musaana ñëw dañ daan wax itina bi adaabillahi in kuntum mina sadiqin lu borom yàlla ñu bu dee li ngay wax dëgg la wala allahuma in kaana haada huwa alxaqa min indik fa amtir alayna xijaatan min assamaa bu dee ñu dëgg la yàlla tawi xeer bi gis ila axirihi ak yaa ayyuha alladina unzila alayhi dikru ah innaka la majnun yow mii daal di wax alxuraan yow da ngaa dof lamma tatina bil malaa'ika in kunta min assaadiqin fa yàlla indi mboolem malaaka yi comme ni ñu ko waxee suuratul Furqaan an tati billahi wal malaa'ikati qabila yàlla ak malaaka yi lan la bu ngeen gisee dinañ tax ñu gëm même bu ngeen ko gëm moo koy wax kon gis nga ci gëm yàlla suñ ko jàngalee alxuraan la amul lu mu ciy teg maanaam di wax est ce que dañoo la ñeeg est ce que yaakaar déedéet yéen amu ci gis nga ñu gëm yàlla suñ leen fàttalee borom bi subhanahu wa taala ana wan yoon boo gën a gaaw pour jëfe loolu la ñuy jëm ci moo tax suñu borom ne subhanahu wa taala wa mamana naas lan ma def ci diggante nit ñi ay yuminu ba gëmuñu is jaahumul huda bi ñu leen dikkaleen njub ah illa ay wa yastaghfiru rabbahum ñu jéggal ci nit seen borom illa an tatiyahum wala dañuy xaar ba dikkal leen ah sunnatul awwalina li nga xamante ni mooy doxalin suñu borom ci ñu njëkk ña doxalin suñu borom ci ñu njëkk ña nag mooy bu leen waaree fàttali leen gëmuñu suñu borom wàcce xalkande ci seen kaw xam nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaan gi ñu ñaanoon yàlla nangul ko ko bokkut ak li nit ñi soxla ñu bari dañu foog ne maanaam li yàlla doon alagee ñu njëkk ñi yàlla du ko arabi xel déedéet yonent bi lam ñaan mooy li yàlla doon def xeet yu njëkk yi bañ ñu ko def mooy nag mooy nit ñi def ab bàkkaar bu mel ni ñàkkal peese wala yu demee noonu su borom yebal maanaam su ñu xaasiree ñu dee affaire bi jeex maanaam mbugaloo leen benn yoon loolu moom xarit ñëw na ci yonent yàlla bi ne ñaan naa ko suñu borom suñu borom may na mooy seen mën yaa ngi tax mën yaa ngi tax yàlla alagandoo leen ñoom ñëpp ñu jeex waaye nag mooy yàlla gi day wàcc mbugal ba tey soo demee ci suuratu Huud di borom ngay ñett ñi mu alagee woon yeneen nit yoon ci yàlla loolu ci ngóor ci seen bët dafa teg ca jeexinte yu aaya ga dañu wa maa hiya min az-zaalimiina bi ba'iid yar bi suñu borom doon rëkkee ndiggal toonkat yi mi ngi tege fii soriwul ba léegi nag borom xam-xam yi ni kon mooy wane ba léegi day wàcc moo tax am na yenn xeeti mbir yi nga xam yuy ñëw nit ñi di ko tuddee natt fekk tuddut nattu nattu dafa am dugal am nattu ki gëm yàlla nekk ca la ko yàlla sant la ko suñu borom di teg waaye mbugal ci gëmut yàlla nekk ci suñu borom lam ko tere kooku la ko suñu borom di teg suñu borom mu ni illa an tatiyahum sunnatul awwalin wala dañuy xaar ba mu dikkal leen li nga xamante ni mooy doxal na suñu borom ci ñu njëkk ñëpp ah mooy alkane wàcc seen kaw aw wala an yatiyahum mu dikkal leen al adaabu li nga xamante ni moom mooy mbugal mi maanaam xubulan mu nekk loo xamante ni lu ñu jàkkaarloo lu ñu gis la maanaam borom bi subhanahu wa taala kat wàcce li nga xamante ni moom mooy mbugal mi ci seen kaw maanaam mu nekk loo xamante ni lu ñuy gis la waaye yaraw na ko xubulan te yaraw na ko ayaanan maanaam bëccëg bara kàmm comme ni ko wolof yi waxee ndax mu gën a leer suñu borom ne wa maa nursilu al mursalina wa maa nursilu yónniwuñu al mursalina ñi nga xam ne ñooy yonent yi illa mubashirina lu dul ñuy bégee ñu bégeel ñi gëm yàlla ñi kat anna lahum inda rabbihim ajran xasana maanaam dugal bu wéy nga dugal xéwal yu rëy ñu ngi leen di xaar ak tiyaaba yu rëy ci suñu borom waaye di xuf ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu weer di di mbugal mu métt jëriñ ma nga leen di xaar fa suñu borom kon mu wàcc di na di bégloo mun bëri na ak a xuppe moo tax borom xam-xam yi ci aayaat yi la ñuy sukkandiku di wane ni ki gën a mën a daawa mooy ki gën a jëfandikoo gën a mën a jëfandikoo aaya ji mooy di boole diggante bégle ak xuppe maanaam léeg-léeg nit ki danañ ko bégal ci dernier àjjana ya ba mu leer loolu da koy gën a sawar loolu gën sax di xam ngeen ni benn yi àggane yi mën naa tax nit naagu waaye mën naa tax nit gën a góorgóorlu waaye mbugalu sawarama kat mën naa tiital nit ba mu jàjju waaye mën na koo tiital ba mu gën a góorgóorlu suñu waram mu ne wa maa nursilu yónniwuñu al mursalina yonent yi illa mubashirina lu dul ñu nekk ñuy dégle wa mundirin di xutbe wa yujaadilu muy werante alladina kafaru ñi nga xam ne ñu weddi bil baatili ci neen li yeddu xedoo ngir ñu mën koo pompe lii ba xedoo bi ñuy xaq ngir ñu mën cee pompe dëgg yu naan ak pompe ci dëgg noonu ay soo xam ne naka dëkk nag yi ñëw yëpp jubluwu ci leen lu dul rek na fexe ba alquran ji moom bu ko kenn gëm gis koo xamante ni dana wax ci jigéen ji miraas bi ko islam jox duñ koo xeet parce que góor ñaar jigéen benn daa jaaduwul koo xam ne naan jigéen kenn waru koo nangam jigéen duñ ko tëj ci kër yooyu wax ñu wax suñu borom lii du xebru bi jël xaq dem ci dëgg suulee dëgg loolu lépp moom misaal mi olof bi joxe ñoo bokk yow suul kër bu ko teree fee ndax da ko menaces yi damay faral di comme ni ma ko das yi passé dafa arrangé islam trop parce que menaces yooyu dañ gën tax jullit ñi réveillé waat góorgóorlu borom xam-xam yi taalif ñu woon jëpp caa taalif innocent yi jullit ñi yeewu ca yéete yi xamul lislam commencé tàgg ba tax suñu menaces yooyu dafa arrangé islam trop parce que bari waa nañu leer te fekk ci menaces yu mel nii la jaar moo tax suñu borom mu ni li yëpp xëy na jël xaq ngir ñu mën cee suulee dëgg muuree ko ko waaye wattaxadu ñu jàppe aayaat yi samay aaya man sama seen borom wa maa undiru ak li nga xam ne moom di waaree rusulan def ko mokke kaay xam ngeen mokke xam ngeen mokke mokke mooy reetaanu kaay fawukaay maanaam dafa am loo xamante ni alquran mooy seen fawukaay wallahi lii am na parce que fii ñu di seen mokkewukaay ñi nga xam moom bu ñu bëggee mokke nit ñi wala ñuy def alquran la ñuy jël ci théâtrekaay ci film yi ci ci lépp rajo yi télévision yi wallahi ba ba internet benn jour maa ngi dugg internet gis xam ngeen lan lay def al-allaama ibni baaz wallahi al-azim al-allaama ibni baaz yéen a dégg lu ma wax al-allaama ibni baaz Abdul Aziz ibni baaz ñu jël ko ci duwaaru xaj muy def ay fatwa di ndaw wallahi al-azim lii maa ko gis kenn si léegi lu ko doon téléchargé ba loolu comme oubien lay dégg lii ko doon sax téléchargé nit di ko gis sax al-allaama ibni baaz al-allaama ibni jabril ñu jël ko mu yëpp ay fatwa subhanallah al-azim fatwa yi waaye moom daa wees yàlla ci mujjël sunu dundum doo ko faat maanaam maanaam ñi nga xam ne tey ñooy caaxaan nokkeewukaay yi théâtre yi beneen ba léegi yàlla subhanahu wa taala moo leen di saako yonente gis nga théâtre kat yi ci julli ci julli te julli ñu kenn ko ba léegi kenn ko te wallahi ñi nga xam ne ñooy yoroon diine ñi fi nekk ku juumoon ba laal lenn ci seen gëm ci seen diine yéen a ngi fàttaliku benn musicien bi ñu fi créé woon problème yi dul jeex ngir instrument bi ñuy def ci biir église bi moom la dugal ci biir musique bi kese te koy ab instrument du alquran du tawraat du seen téere du injil du dara instrument kese la waa ji jël ko dóor ci biir musique bi ñu bëgg a tukkal adduna bi alquran ji ñu ngi koy woy ci biir boîte de nuit yi te imaamu jàkka yi ñu ngi leen di foyee noddkat yi ñu ngi leen di foyee te seetlu leen même ñi nga xam ne ñoo ne ci média yi imaamu jàkka bu bu bu bu def lu bon da lay demee noonu te après imaamu jàkka nit ñëpp même bu ko defee war a ko waaye tamit bu ko defee lim def la keneen di def. waaye boo seet nag da nga nit ñi mokk di ne daf leen neex information yi mel dañ koy jox ampleur bi gàttal ko réer ko su ko defee imaamu jàkka sàngam kat def na nangam nangam te jamono tey ñooñu ñu ñëw ñu ñëw ñu moom da ngay def yeneen waaye kenn wax ko waaye nag bu leen fàtte ni borom bi subhanahu wa taala am na sunnaam soo xam ne xatta al aan mi ngi am nga am na yoo xam ne moo koy wattu loxo du ko sant xel d'accord que jullit ñi dañuy def ay effort pour bañ caa amee tiyaaba waaye al-allaama ibni kathir ci al-bidaaya wa nihaaya ak yeneen borom xam-xam yoo xam taalif nañ ci mujjantal yu bon am na benn borom xam-xam bu ma tee Youssouf ibni Youssouf ibni Saad ko tamit Youssouf am na ci tamit taaj na benn téere tuddee ko juróom-benn fukki misaal ci xewal bu yàgg ci mu jëntalu gaa yi doon toom yàlla subhanahu wa taala di mokki alquran moom ñu demee gis nga dañ ci indi ay misaal ñu doon saboote am na benn waay boo xam ne Abu Hurayra la doon saboote moom daal moom li koy neex rek mooy nit ñi jiwul ko mu commencé di wax Abu Hurayra kàcc kat laat moom li muy waxal yéen ci du dëgg di wax ay wax yu bëri bi mu demee bay faatu borom bi subhanahu wa taala daf ko nattu ñaari nattu benn bi dafa mel ni dafa am ko taxaw ci peggam yor forme Abu Hurayra di ko xat benn ngooñ ñaareel bi benn borom bi dafa paralysé benn wet gi moom nee na bu ñu jëloon ay maas di ko dóor sama koom bi mu duma ko yëg te weñ mu naaw weñ weñ xool weñ ak poids bañ ñu tuddee mu ba dalal te jënd wet gi muy dafay mel ni dañ koo yëngal. aahin Abu Hurayra aahin Abu Hurayra loolu wax ba xëy faat ak yeneen ak yeneen ak yeneen am na ñeneen saboté ñeneen ci saxaaba yi waaye ñu ne loolu kon li li li war ñu gëm yàlla mooy kenn ku laaj da ngay ci défendre ko ma wax mbokk yi ma ni leen am na yoo xam léegi la commencé am rek jiw da doon saaga yonent bi alayhi salaatu wa salaam yonent bi day julli gee ba nag saxaaba yi jiw ci dëkk saa yu doon ñu ngi lay saaga di ma xas wala ñu ngi saaga lislaam di ma xas benn saxaaba jóg ni yonent bi loo ci bëgg ñu ko xanaa ñu faat gis nga kooku keroog guddi googu di nelaw lii am na ay yoon ci jàkka yonent bi alayhi salaatu wa salaam day dem këram jël jaaseem jël dem li nga koy rawee par teg ko ci layu xam ngeen layu li jigéen ñi foofee bi ci layu la koy teg bu xaja te fekk da nga ray bàyyi la dégg indi bopp bi nga dund foo ko ko ray li am na am ci am maanaam ñoom ci seen jëmmi dox mënuñu woon a concevoir ak di muñ nit ñi saboote alquran ya lay demee noonu loolu loolu moo nekk ñoom xëy na faiblesse bi am ci gëm yàlla tey moo tax jullit mën koo muñ waaye déedéet maanaam saboote alquran ya la saboote yàlla ak am na waa joo xam ibnul axtal dañuy saboote yàlla di xas yàlla ko yonent bi yonent bi dafa mer ba ñu def ci ruub yeneen ko def ci ñun ci astaril kaaba xam nga kaaba bi ku ma dugg wax dëgg yàlla da ngay sama ndaxalawu kaani amina waaye kii yonent bi da koo mere ba dem nit bu ngeen ko tekkoon ñu sànloo morso kaaba di taxawal leen ak yu mel noonu kaab bi ni Zuhayr yu bokk ci soxora yu gën a mag nga xam ne danañ xas yonent bi di ko wax ay wax yu bon yonent bi joxe na déclaration nañ ko rey allahu akbar saxaaba yi di ko rëbb rëbb boo xam ne comme nit ñi muy rëbbee bu xiifee bëgg lu lekk moom dafa am chance ndax li ko may chance mooy yàlla dafa def mu xam ne ñu ngi koy menacé mu jiitoon benn xaritam xarit bi ni ko su fekkee ñeneen bi ñoom nga yiir la doon yépp ci yonent bi dañu waxee waa ji gëm ko mu ne ko dañ lay lijjanti li waral yonent bi du ma rey mu dikk wax ko yonent bi yonent bi day sax xoolal te li doon saaga yonent bi alayhi salaam waaye comme bëgg la tub yonent bi suñuy manta bi ñu solal bu gàtt jox ko ni ko soo dajee moom nga xam ni kii mën naa ko jox lii bi mu dikkee wax ko ko mu màkk kaalaw ñëw daal di fekk yonent bi alayhi salaam toog bi mu ñëw ba toog ci yonent bi ba jox ko loxo mu xam ne léegi mucc la ci la dindi ko alal yow nag mu ne ko mën la kaab yonent bi siggi xool ko alayhi salaatu wasalaam bi mu siggee xool ko mu tuub tuub na bañ lay baal ci la waye woon way nañ ngeen di jàng ci suara yi baanat suaadu fa nafsi loolu loolu su loolu di tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam kat yu yu neex a dégg kon kooku loolu moo ko may chance am na ci ñoo xamante ne ci bunt bi lañ leen rayee kon suñu borom ñu doon abonné mu ana kan mooy ki gën a mën a tooñ ñun man ci waa ji nga xam ne dëkkee dañ koo fàttali bi aayaati rabbihi ci aaya suñu borom yi fa aarado anha mu daal di dummooyu wa nasiya mu fàttali ma qaddama yadaahu li nga xam ne moo ne ca kanam allahu akbar li nekk sa kanam ay ay xaqabaat ay kàmb ay bax li nekk sa kanam yoo xam ne da koo joobi jëm àllaaxira sunu borom ne inna ñoom yàlla jaalna dañoo def ala qulubihim ci seen xol yi akinnatan ay gàkk-gàkk akinna gàkk-gàkk mooy kiiraay muuraay loo xamante ni maanaam sunu borom da koy muuree xol bi ba xol bi di mën a jubbantiku di mën a gis njub mooy fi qulubihim marad fa zaadahum allahu ak sunu borom subhanahu wa taala mu ni ñi nga xamante ni yaa dañ ko def ay bàkkaar ci mooy yàlla dañuy yegg ci li ñuy tuddee ar rawaan loolu la kalla bal raana ala quluubihim maa kaanuu yaksibun def bàkkaar dafay tomb tomb bu ñuul ci xol nga defaat beneen bi tomb tomb bu ñuul nga defaat beneen bi tomb gis nga boo ko tuubul daf lay jural ñaari mbir ba ñett benn bi mooy da lay jural alkade ñaar bi day muur sa xol ba njub ak mbaax léegi ci mën a tàggeete waaye ñetteel bi dafay waral sa xol bi koy mën a noyyi suñu borom ne ñu def ci seen xol yi akinnatan ay gàkk-gàkk ay yafqahuuhu ba duñ mën a jëriñ ci alquran dañuy koo xam ne suñu borom mu ni duñu gëm yàlla walaw jaatuhum kullu aaya ñu jibril wàccoon di waaraate ñu déglu ko mikaayil wàcc di waaraate ñu déglu ko asrafil wàcc di waaraate ñu déglu ko suñu borom néewul boppam suñu borom mu ni nit ñu néewul suñu bopp sax ñooñu duñu gëm ndax yàlla baare na seeni xol ba noppi xatta yarawul adaabal alim maanaam ñoom li leen di yaar mooy yeneen ci yàlla bu tudd mbugal yeneen ci yàlla bu mbugal kese moo leen di mën a waar wallahi li am na am ñu mbokk lu rat la nag am na ñoo xam ne nit ñi mënuloo la wala da ngay gis nit mu àgg ci ñeneen yàlla ak secteur bi boo xam ni te da ngay gis sax yow da ngay gis naka la nit ñi lay lii fekk nit day toll koo xam ne xolam dafay dee dafay wow dafay yàq su ko defee moom dootu mën a jubbantikoo ci kooku encore maanaam li ko mën a defar mooy sawara am na xeetu gàkk gàkk yoo xamante ni waaraat du ko dindi sawara koy dindi suñu waram mu ni ñu def ci seen xol yi ak seen natan ay gàkk gàkk ay yaqazu ba duñ mën a dégg njub yi wa fi aadaanihim li nga xamante ne mooy seen nopp yi waqran suñu borom def ci ay barrage ay protège yoo xam dafa sakk nopp yi ba boo leen doon waar ñoom duñu jëriñu wa in tad'uhum boo leen doon woo ilal huda jëm ci njub falan yahtadu duñ mës a gindeeku abadan ba xaw ba àllax allahu akbar lii mooy alkande mbokk yi koo xam ni tey njub dafay ñëw ba sam xarantey tànk doo ko mën a gis nga ko xam ne man dama bëgg a tuub waaye moom du xam lu ko teree tuub est-ce que bëgg a baax du xam lu ko teree baax moo tax doomu aadama day toll foo xam ne suñu borom dafay wawal xolam dafay baare xolam comme ni ñu ko waxee ci suuratul baqara ak yeneen saar xatama allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishaawa ak ci suuratu yaasin ci biir suñu borom mu ni wa rabbuka ta borom yàlla al-ghafuur mooy ki bëri jéggal zur rahmati borom yërmande allahu akbar yàlla subhanahu wa taala bu jàppoon jaam yi ñoom ñëpp dugal leen ci mbugalam alak leen fenn na du mujj fenn na laa fenn na du mujj waaye borom bi subhanahu wa taala tamit bi mu bindee bindee fii ba noppi yërmande daa jiitu mer maanaam yërmande mer bu doon julli te yërmande mooy nekk iman doom ak ni yaay amee yërmande ci moom rawatina daw ngi naam yéen ci yàlla bi ne ne yàlla moo ëpp yërmande ci jaam bi ndax ni yàlla yërëmee jaam bi amul keneen ku ko yërëmee noonu ba tax léeg-léeg borom bi subhanahu wa taala teg nit nag nga jàpp ne loolu ñàkk yërëm la fekk yaa xam lu yërëmande waaye loolu ci yërëm di ko yàlla yërëm la ko ndax bu fekkee xam nga la koy xaar ëllëg ci mbugal borom bi remplacé ba ko ay neen ci taabati kutti kutti yàqu-yàqu fii ci àddina ak mbugal ko ëllëg mbugal wallahu yaalamu wa antum la taalamun suñu borom mooy fi xam ñun xamul suñu borom mu ne suñu borom yàlla mooy ci bari njéggal al-Ghafuur sifa mubaalaga la te ay turam tamit ci la bokk gis nga doomu aadama lu mu def ci ay bakkaar ak lu mu bari bari bari bari bari lu mu ko yéem bu tuubee borom soo dara jéggal ko xoolal nit koo xam ne rey na téeméeri bakkan yu manqué benn nga xam ne benn bakkan rek yéen yàlla ma ne ko suñu borom ma ne ko ba faat ne la ni faat di yéen waaye bëgg tuubal tax nga suñu borom ñeen ci wala ku mu jub di wéy ku muy tuubee ba reyaat beneen bakkan muy téeméer bëgg tuubaat xolam tuddaat lu jugaat ñu tegtal ko fa ñuy tuubee di mu dem ba ca yoon wala ndeysaan paas malaakay àjjana ñëw di ko jël si malaakay sawara ñëw di ko jël si ak xëccoo am kii daa tuub di soppeeku ji kon àjjana la war a dem dee da doon dem yéegalu ci ci mbon la jóge kon sawara la war a dem xool yàlla subhanahu wa taala zur rahma ku bëri yërmande la mu yebal benn malaaka mu ñëw malaaka mu leen àtte malaaka mi ñëw mu ne léegi nañ nag dëkk bi ñu jugee nga xam ne fa la doon defee bàkkaar mooy la koy taafal safara dëkk bi ñu jógee nga xam ne fa lay tuddee mooy la koy taafal àjjana ñu xool fan la gën a jege ci kéemtaanu yàlla ji subhaanahu wa taala mooy dëkk bi mu jugee nga xam ne fa la doon defee bàkkaar fa la gën a jege kon daa war a dem safara suñu borom bi ee yow suuf sii nga xamante ni yaay foofu jëm lu gudd gàttal léegi nga fekk suuf si daal dina yem fii gën a gàtt xam nga loolu loolu sax yéen yàlla dafa gën a yàlla ko gëm yàlla xam ngeen sonn kii ñaan tukki allahumma tey am na boo ada da nga war a dox lan nga ñu kërale ci àll bi tukki nga ñaan yàlla lemal la yoon bi yéen ci yàlla yàlla da lay lemal suuf ba coono tukki di nga daj ba ñaan yooyu boo ko rek ñu fekkee ñaan loolu yow yow seen pour mii rek boo góorgóorlu la mën nga ko am yéen ci yàlla bi ñu natt fekk fa mu jëm fa la gën a jege mu daal tàbbi aljanna allahu akbar bay waa ne nit ku doon def ay bàkkaar di def ay bàkkaar di def ay bàkkaar xoolal njaalokat moo xam ne dafa fanaane njaalo ba xëy di nit bi romb xaj bu yelkat yéen ma di tax mu may ko mu naan yéen ci yàlla mu yàlla daal di koy tàbbal àjjana ca loxo loolu du pour yore bi mooy leen mooy waaye li mu yore mooy ma ne yàlla sant la du kenn bokk ci ne jiw yàlla di ko baal ñaari gaay ci bani Israil dañoo xaritante woon kenn ki baax lool kenn ki saay saay lool ki baax lool dañuy di waar ko saay saay di ko di ko waar di ko waar di ko gën di suñu bëri daway jaabul yàlla nga bàyyi na sama saay saay te yoon nekku ci waa ji mer mu ne ko wallahi la yaxfirullahu lana gis nga ci yàlla ni yàlla du la baal yéen ci yàlla bi ne yàlla dekkal leen faat leen dekkal leen ñoom ñaar ñëpp daa di laaj waa ji ne ko man alladi yata'alla ala ibadi kan mooy yàlla yàlla lu ci jaam ñi bay wax kamay jéggal ak kuma dul jéggal léegi moom mooy katu yàlla bi laay jël tàbbal àjjana yow jaam ko te ma tàbbal la sawara ba xam ne yàlla mu àjjana ba dafa tàbbalee sawara dafa xam mu tax gis nga ay jiw bi dem àjjana gis nga classement bu dem àjjana yow toppoo sa wàll jiw dina dem àjjana jiw dina dem jiw buy jee yàlla di ko lakk mbokk yi jiw buy jee yàlla di ko lakk moom waa ji ma mujjee nekk li nga bokk benn at yi wax nii yooyu bi sa problème la toog yéen ñu tënk sa dugg yow say këyit yi bokk yow dara fekk ci li jëm ci li jëm ci ko yow gis nga kon benn waay bu amoon ay doom am alal mu dem ba dee dikkal ko mu wax njaboot bi ñu leen yéen ban bàyyi laa nekk ci yéen gars yi ko yow kay mun ñoo am bàyyi bu mel ni yow mu ne kon bu ma dikkal di ngeen ko def ñu ne waaw mu ne su ma faatoo da ngeen may takk ba ma xëm ngeen def ma doomu daaw bàyyi ba bis boo xam ni ngelaw dafa bari ngeen xëpp leen a ci géej gi xëpp la ko def ci jéeri ji loolu loolu yéen seen yoon ñëw defal leen ma li ko mu faatu doom yi defal ko loolu lu tax loolu jublu mu ni damaa xam ni bu yàlla bu dee yàlla nar naa am kàttan ba dekkal ma bu ma dekkalee tey ma dee ndax li ma def ci caay-caay di ma di ma tey ma misi ma dal bu dee yàlla am na kàttan ba dekkal loolu rek sirk la loolu rek caay-caay kay ndax yàlla am na kàttan ñu ngi sikki sàkk xaar pour ñu rek bokkaale yàlla la fa konoon su bokkaale sax la ñu jee dee fa waaye loolu mos la jiitu xeet yi la bokkut ak suma xeet yi yéen bi alayhi salaam mu ne suñu borom daal di koy jekkal mu ne pënd bi na ci géej gi fekk pënd bi nekk ci jéeri ji waa ji daan jékki di waa ji ne suñu borom ne waa yow si yëfi dox yi loo ci jublu mu ne ko damaa xam ne def naa ci ak caay caay loo xam ni su ma dajee ci yow ba nga sa kàttan gi di jëfandikoo ko ci man alkaane dana ma dal ma ma gën mu def noonu rek lu ko ne rek danaa damay fàtte su ma doon xool ba xool yax yi ne ko dugal àddina moo tax ñu mbiri suñu borom benn baax dana wax mbiri suñu borom yooyu la sant yooyu yooyu yooyu mooy kii nga koy foofu mu dem fee borom foofu la jaamu ko def li mu la sant bàyyi ko ci yoon yi ka muy jéggal ak ka muy yërëm ka muy baal ak ka muy baal doomu aadama dina texee di texee di texee di ba tout pas moo ko defee pour mu faatu mu tuub yàlla na ko ak ma ne de gën ci yàlla may nit ki dama dem ba diggante ak tàggu safara benn sebre moo ci dox téere jëf ne day tàbbi àjjana daal di yegg see mu def jëf waa àjjana tàbbi àjjana mu jeex kon sunu borom mu ne waaw bu ko sa borom yàlla al-Ghafuur mooy borom njëkkal li pour rahma di borom yërmande law yu'aaxiduhum su fekkoon dafay jàppe nit ñi bimaa kasabu ci li ñuy def ci ay njombe la ajjala lahumul azaab bu gën day teel a xoolal yàlla subhaanahu wa taala su fekkoon ni law yu'aaxidullaahu n-naasa bimaa kasabu maa taraka alaa zahrihaa min daabba su la nit ñi daf leen topp li ñu doon def sunu borom mu ne kenn du def ci kaw suuf wala sa borom xam-xam yi dañuy wax ni malaaka mi nekk ci ndeyjoor di bind tiyaaba yi mooy kilifa malaaka mi nekk càmmoñ soo defee benn tiyaaba malaaka automatiquement da koy bind ba pare tuur ko soo defee benn bàkkaar kilifa bi danaan ko xaaral tuuti may ko battement tuuti ndax mu tuur allahu akbar ñu may la ay ay ay ay minute wala ay waxtu ngir nga tuur su fekkee tuur nga ñu doog koy bind benn te bu ñu koy bindee keneen lu kii bi malaaka mi soo defee tiyaaba big la koy bindee te bu ko bindee ci misaal da koy ful kii buy bind bàkkaar bi benn bàkkaar lay bind te keneen la koy bindee mooy mi ngi def question pour xaar koom nga tudd ñu ko mel moo tax gis nga doomu aadama su xamoon yërmande ji yàlla am ci moom day xam ne moom sax amu ko ci boppam sax yàlla ni mu la yërëme yow yërëme la ko def suñu borom ni su doon dafay jàppee nit ñi maa kasabu ci li mu doon def ñu àjjana lahum al azab kon mu doon day teel a yegg si ndax doomu aadama yi ñu leen suñu borom sant si la ca gisuñ ci dara suñu borom ni bal li am kay lahum def ñeel na leen xaw ma idun ab rendir ñi ab daj daje boo xam ne lay yéegi du duñu am min duuni bi walis dajamaat ah maw ilan ak foosi maanaam du du ñàkk a ñëw maanaam du fomm maw ilan mooy du fomm su borom ne lan yajidu min dunihi mawila maanaam bis ba ñëpp duñu somm wa tilka al qura dëkk dëkkaan yaa ngi loo ngeen dégg nag jii rek Samud jii rek Aad jii rek waa Firawna ak Haamaana ak Qaaruuna ñi ngeen gis ak ñi ngeen gisut ñi ngeen dégg ak ñi ngeen déggul wa tilka al qura dëkk dëkkaan yii ngeen di dégg ak yi ngeen di gis ahlaknahum suñu borom daf leen alagoon lamma zalamu ba ñu tooñee kon yéen ñi toon bàyyi leen xel ca loola wa ja'alnaa ñu def li mahlikihim li mahlikihim ci seen alkande ga maw'idan ab dig boo xam ne ba mu yegg see rek borom bi subhaanahu wa ta'aala wàcc mbugalam ci seen kaw dina di àll kon bind bi mi ngi taxaw foofu mu ngi ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq fii ci àddina ci alaaxira mu ngi ñaan suñu borom mu nooyalal ñu suñuy xol ba ngëm yàlla fees ci mu ngi ñaan yàlla mu dimbali ci mu gën seen yu rafet mu ngi ñaan yàlla subhaanahu wa ta'aala mu defal ñu alxuraan mu nekk rabi'a quluubina وصلى الله وسلم على محمد